sëriñ bi nee na jàng fatiha salaatu fatiha. yàlla na yàlla nungu te nungul nungul mbooleem jullit. yàlla bu mu musa nekk sunu jul mujj gi julli àjjuma. yàlla defal leen jàmm defal ko réew mi. mbokk julli yi ci àdduna bi yëpp. yàlla na leen ko yàlla defal. yàlla wàcce dal ci réew mi. tàppe xol yi. ba ñëpp àndandoo. xam ni Sénégal rek lañu am. coow lu bari lii matu ko de. wax ju bari jiit matu ko. wax ju ñaaw ji matu ko. nee na ndax ku bëgg a defar. nee na ku bëgg defar boo ci bëggee boole aw yat. am na leneen loo nar lu dul defar. sago yi ak xel yal na yàlla delloo si sago yi ak xel yi. Sénégal Sénégal gii. cat nag koy bëgg a dugg. cat nag mu ngi bëgg a dugg ci réew mi. segam duggul ba pare. segam duggul ba pare. ndax ñu baax ñu am. ndax nit ñu baax ñi nga xam ci moom la ñu am. te ñuy suñu ay référence gannaaw yonent bi. ñuy suñu ay référence ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kenn ku nekk am foo féetale sa bopp. kenn ku ci nekk am foo féetale sa bopp. attan yenn ti wax yi. attan yi wax yenn wax ji. xoolaat sa bopp. war ngaa dugg ci ruq xoolaat sa bopp. nañu yéeneente jàmm. nañu yéeneente jàmm. tey wax jàmm. tey wax jàmm. nañuy yéeneente jàmm. nañuy yéeneente jàmm. tey wax jàmm. tey wax jàmm. nañuy yéeneente jàmm. nañu yéeneente jàmm. tey wax jàmm. tey wax jàmm. bu ñu ko defee rek. bu ñu ko defee. yàlla mën nañu dolli sutura. yàlla mën nañoo dolli sutura. ndax yàlla benn ndab lay def. ndax buur yàlla kat benn ndab rek lay def. xajul fenn ci àdduna nag moom yàlla. moom buur yàlla xajul fenn ci àdduna. nee na xaj na ci xolu jullit nag. waaye nag nee na xaj na ci xolub jullit. ndegam xol ba sell na. ndegam xol ba sell na. mooy li nga yéene sa bopp. nee na ndax li nga yéene sa bopp. nga yéene ko ñëpp. nga yéene ko ñëpp. su boobaa nee na. yàlla subhaanahu wa bu boobaa. boo ko tàllalee ndab li nga am. boo ko tàllalee ndab li nga am. te mooy sa xol. tamit sa xol. mu duyal la ko yiw ba mu fees. mu duyal la ko yiw ba mu fees. waaye bu ko yërëndoo. nee na waaye bu ko yërëndoo nag. gis ni dafa tilim. gis ni dafa tilim. wala yéene yu bon rek ka ci nekk. wala yéene yu bon rek ka ci nekk. dara la ca dul sotti. dara la ci dul sotti. kon ñu laabal xol yi. nee na kon ñu laabal xol yi. fóot xol yi. fóot xol yi. àndandoo. àndandoo. yéenante jàmm yéenante jàmm. yal nañu yàlla taxawu. yal nañu yàlla taxawu. taxawu jullit ñëpp jàmm ci àdduna yëpp. te def jàmm ci àdduna yëpp. nee mu ngi sant. Euh, Aynou madi TV. Aynou madi TV. mu mel na ci yi mujj a judd ci la bokk. nee na ci seen yi nga xam ci ni moo mujj a judd ci la bokk. waaye yéeneem rëy na. waaye seen yéene rëy na du Tiwaawan rek la dem. nee du Tiwaawan rek la dem. ndax xam gu xam ni. ndax xam gu xam ni. yàllaay maye. yàlla mooy maye. te ku ne lay may. te ku nekk lay may. loolu bu ko ñëpp xamee. nee na bu ko ñëpp xamee. ñëpp noppal. ñëpp dina noppal. waaye jàpp ni yëf yi Tiwaawan rek la. waaye jàpp ni yëf yi Tiwaawan rek la. wala feneen rek la. wala feneen la. xamuloo li xew. xamuloo li xew. yàlla ñi ko gëmul sax. yàlla ñi ko gëmul sax. amul sax ku weddi yàlla waaye ñi ko nangulul sax. waaye nee na ñi ko nangulul sax. mu ngi def li muy def ci ñoom. nee na mu ngi def li muy def ci ñoom. te coow jibul. te coow jibul. rawatina jullit yi. rawatina jullit yi. ki ko sos. ak ki ko sos. ak ñi mu àndal di équipe am. ak ñi mu àndal di équipe am yëpp. yàlla bu yàlla dañ. yàlla bu yàlla dañ. di leen may ak yokkute. di leen may ak yokkute. ci barke Seydina Muhammad ci barke Seydina Muhammad. fu ñu dégg lu baax. fu ñu dégg lu baax. taal seen oto dem. taal seen oto dem. laajuñu kenn essence. laajuñu kenn essence. laajuñu kenn dara. laajuñu kenn dara. waaye yàllaa leen ñor. waaye yàllaa leen ñor. ak xeeñtu. ak xeeñtu. mag ñi. mag ñi. ak li ñu fi bàyyi. ak li ñu fi bàyyi. kon yal na leen yàlla fay. kon yal na leen yàlla fay. Bismillah. Bismillah. Bismillah. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin ya Allahümme salli ala seyyidina. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Amin. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi.